waxaat leen ko magistrat yi moytu leen seen bopp parce que réalité politique yàlla def ko ay millions de sénégalais topp ci yow benn magistrat nga ne maay dem toog sama kër moo xam Macky Sall dalaa jox xaalis wala dalaa jox promotion wala dala xoqatal nga ne man maay tere kii nekk ma euh, candidat bu kooku nekkul candidat it yow sa nekk ci réew mi dina jafe bu newul candidat sa nekk si réew mi dina jafe magistrat yi moomu leen Sénégal kenn du fi nekk naa leen ragal leen yàlla parce que xamu leen ko seen yoon newu ci waaye comme nag da ngeen di jaay ni soo waxee ñu ne force restera à la loi la loi est la loi du peuple que donc force restera au peuple sénégalais man de dinaa leen wax man Ousmane Sonko dama décidé xeex. lu xeex bi laaj rek dinaa ko def lu mu laaj dinaa ko def xam ngeen président xalifa sal bi mu tollee fi ma tolloon dafa bëggoon a won sénégalais ni moom homme d'état la bëggoon sénégalais ni moom républicain la bu ko woon ni moom dafa gëm institution yi ñu taxañ ko laxas ko justice jaay ko doole ñu tere ko mu nekk candidat moo tax ma ne leen man institution Macky Sall faalewu ma ko république u Macky Sall faalewu ma ko justice Macky Sall faalewu ma ko parce que ñoom parce que ñoom ñooy les hors la loi dans ce ñoom ñooy les hors la loi ñoom ñooy jël la loi jël les institutions jël la république mettre ko au service d'un parti politique d'une famille et d'une personne moo tax farata la ñu xeex ñooñu ak xeex bi lu mu laaj ñu jàmmarloog ñoom farata la moo tax ma ne leen sama discours du weesu loolu de les hypocrites yi toog fële naa nitu fitna lañ j'assume man je l'assume je l'assume ba fu mu yem ndax ku fi seetaan gis nga ku fi seetaan ba ñu def la li lay def ba pare ñi ñëw ñëw di la jaay ay naan ñoom ñooy les républicains ak di la jox conseil fi ñu toog la ñuy toog naan ndeysaan prison sax duñu la fa seet si mbokk yi on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver senegal ay at juróom-ñeenti at ñuy xeex joxuñu nit xaalis sàcc ñu xaalisu réew mi joxe ko digguñu nit ñi lu amut waaye dañoo bokk ak yéen ay xalaat ci li war a defar réew mi jële fi nger ak sàcc xaalis jële fi nooteel gi nga xam ne noot nañ ko senegal dog jag mbuumu jaam gi delloo si alalu réew mi ci réew mi séddale ko ci séddale séddale bu maandu lii lenn la ci suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex biñ koy door matuñu woon fukki nit di waxtaan ak sénégalais yi ngeen koy gëm ba tey mu yegg si fii nga xam ne ñun ñëpp xam nañ bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi. Macky Sall Macky Sall ak quelques magistrats ne ñoom ñoo am fitu ne li askanu li ëpp li ëpp ci askanu senegal li ñu bëgg ñoom dinañ ko tere moo tax ma ne leen Macky Sall fi mu toll nii ci ñett la yaakaar mi ngi yaakaar ci ay milices jël na ay nit ñun xam nañu ñan ñooy recruter ministres yi xam nañ fi ñu dëkk yor nañu seeni information yéen jeunes yi laay wax bis bu milice génnee song fi ay nit fu ñu munti nekk fekk leen foofu ba ci seen biir kër fekk leen foofu te li gën a yéeme les forces de défense et de sécurité xam nañ milice yi de am na milice yoo xam ne ñu ngi ci biir police bi te kenn du leen jàpp ñun bi ñuy wax gatsa gatsa police ak gendarmerie taxul ñu wax ko de waa APR lay wax si vous avez quelque chose entre les jambes bàyyi leen police fële ngeen bàyyi gendarmerie fële ngeen génn jàkkaarloog ñun. APR laa wax de ñun xeexuñu ñun yoruñu armée yoruñu ay ngàndaay songantewuñu ak police ak gendarmerie lu dul ñu war a def suñu manifestation police ne du fi amee ñu ne dina fi amee ñu def li ñu war a def mais su weesoo loolu ñun bi ñuy wax gàtsa gàtsa xam nga ñan la ñuy wax c'est poltron de l'APR sàcc xaalisu réew mi dem di fay ay milices foog ni loolu mun na leen sauver yàlla xam na ni bu police jóge woon fii gendarmerie jóge fi ñoom ñëpp ñu génn réew mi dama ne réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en mais yeneen réew yi ko def gënuñu ñu gënuñu ñu wallaahi yéen laa koy wax la jeunesse deux mille vingt quatre ñu soppi réew mi deux mille vingt quatre changement commencé fi ba faw deux mille vingt quatre yorin gu ñaaw gi ñu yor réew mi jóge fi définitivement loolu nag lañ leen bëgg a xañ est-ce que di ngeen ko nangu moo tax ma ne leen le quatorze le 15 le 16 autorisation ou ñun ak Macky ak justice ak police am ak gendarmerie fii ci réew mi police laay waxal ak gendarmerie ñoom xam nañu ñan ñooy les milices ñemewuñ leen jàpp te pourtant léegi balaa ñuy commencer meeting bi jàpp nañu kaba bi dëkk fii Parcelles Assainies police jël si na ko mi ngi commissariat central suba ñu xëy ne terrorisme lañ ko attaqué ñu ngay wër seen renseignement généraux naan dañoo jële ay nit Casamance andi leen fii ñii nekk fii yëpp waa Ndakaaru lañu waa Casamance ña ngay manifester Casamance waa Mbakke dinañ manifester Mbakke waa Ndar dinañ manifester Ndar kenn importé wu fi ay nit Macky Sall nag li ma koy wax du bëri dafa jeexal tak tak tak tak ñaar moo am Barthélemy wax na ko na rafetal demam ni Ablaye Wade demee woon Abdou Diouf demee ko mu dem bàyyi ñoog suñu réew ci jàmm defu ko nag ah Cheikh Tidiane yu wax Cheikh yu wax na ko de demam dina ñaaw lool lool lool dina ñaaw lool may lancer nag un appel à nos forces de défense et de sécurité ñun li ñu gën a am li gën a li gën a sacré ci Sénégal mooy armée sénégalaise l'armée sénégalaise moom la sénégalais bëgg kenn ku ne ci ñun buggoon na nekk solda kenn ku ne ci ñun buggoon na nekk soldat ñenn ñi jot nañ koo nekk comme Déthié ñun ñii essayé nañu concours yi sax buggoon nekk soldat parce que amul lu gën a jekk joxe sa bakkan ngir sa réew armée sénégalaise boobu yàgg naa sauver Sénégal yéen a ngi fàttaliku mai ab professeur bàcci li mu ngi ñuy fàttali lettre bi nga xam ne général Jean Alfred jàllo moo ko bindoon président Senghor ne ko l'armée ne te laissera jamais sur le peuple te lii ak lii ak lii na nga ko bàyyi lii ak lii ak lii ak lii na nga ko def loolu mooy l'armée sénégalaise armée boobu mooy le salut du Sénégal à cette armée là ma ne leen bu ngeen nekkee dans les tranchées en Casamance ou partout dans le monde nekkalu leen fa Macky Sall peuple sénégalais ngeen fa nekkal président dem na président ñëw l'armée demeure c'est une armée républicaine c'est une armée du peuple sénégalais bu dee fi ñu jëm Macky Sall bëgg na def ni mu def nu demandons à l'armée de jouer son rôle comme ni mu ko mës a te xam nañu nag li xewaa ah, ndax Macky Sall li muy bëgg a def ci biir armée bi depuis quand aide de camp aide de camp kañ kañ la musa doon général ci armée bi aide de camp président de la république jël benn aide de camp général Sélé Maysa Sélé bugg koo teg ci kaw semga bi nga xam ne sax moo jiite armée bi parce que rek am na lu mu bëgg te suñu armée républicaine bi du ko mus nangu je dis à l'armée vous avez le soutien du peuple sénégalais restez une armée républicaine restez auprès de cette jeunesse restez auprès de ces femmes restez auprès de ces personne âgées le Sénégal vaut plus et vaut mieux que Macky Sall gendarmerie nationale maa ngi leen di ñaan ñu delloo ci seen xel fi mel ni ku dem cité kër góor gi ni ma toog fii rek xam naa ni lu ëpp 1000 gendarme ñu ngi ko yóbbu cité kër góor gi nañu delloo ci seen xel ñun gendarmerie mënuñoo tere egg fi ñuy egg polis mënuñoo tegg egg fi ñuy yegg parce que le peuple sénégalais est le seul souverain te kenn mënu koo tere yegg nañu bàyyi di essayer topp Macky Sall dans son aventure sans lendemain le Sénégal vaut cent fois mieux et plus que Macky Sall et son petit groupuscule la gendarmerie n'a qu'à rester une gendarmerie républicaine la police n'a qu'à rester une police d'État te ñu bàyyi seen tappale yi ñu nekkee nii mbokk yi jamono di yu jamono discours yu bëri le 14 def nañ suñu meeting newoon nañ leen dinañ ko def ci nii wala ci nële le 15 manifestation sur tout le territoire national le 16 manifestation sur tout le territoire national te ma leen dànkaafu nag ñoom kenn duma tànnal man ban yoon lay jaar loolu loolu buñ ko buñ ko dugalee ci seen bopp fu ma neex lay jaar ci ndakaaru nu ma neexee lay daagoo dootuma ko nangu te le 16 nag c'est une audience publique bu leen kenn imposé ne leen yéen amu leen droit dem tribunal ñi fi teew ñëpp nañu dem tribunal audience publique la kenn amul droit ne nit ñi duñu dem moo wax nag ni le 16 mënuñu juger lii de parce que paraparaxe bi ñuy def jaru ko récuser nañu juge bi parce que juge bi mbokk la ci ñoom xarit la ci ñoom li tax ñu tànn ko xam nañ ko juge bi mënul juger dossier bi samay avocat récuser nañ ko na teg dossier bi ñu désigner beneen juge bu objectif le 16 mbokk yi yéen ñëpp na ngeen teel a xëy ñun ñëpp ñu ànd daagu dem tribunal.